jàngeen jëf yéenekaay tey xëy di wéy ak coowal xalifa Sall réew mi quotidien di adduwaat ci càkkutéefu procureur de la république ngir ñu yëkkati mbarlaanu kirlaayu bu meer bu ndakaaru bi yéenekaay bi di ci xamle ni procureur ci boppam dafa mel ni ku weddi maître Sidiki Kaba mi ñu denkoon wàllub yoon mi doon xamle ni Khalifa Sall mënuta am mbaraanu kirlaay ci li nu koy toppee ndaxte ba muy am falu ñu ko woon ab député yëkkati mbarlaanu kirlaay bu Khalifa Sall bi procureur bi di sàkku Sud Quotidien di ci waxtaan ak ñiy féete ci kujje gi daanaka seen taxawaay yëpp benn la ñëpp ne mukk du ca dal bokk na ci Déthié Fall député réew mi bi muy xam ne ci yéenekaay bi ba nguur gi nanguwee ni mbarlaanu kir laay Xalifa Sall am na ko dañu ko war a bàyyi ci saa si El Hadji Issa Sall député bu piir moom jàpp ni député ci seen wàllu bopp ñoo ci war a am beneen taxawaay ci procédure d'urgence ñu daal di samp ab ngir fexe ba ñu dakkal lépp li nga xamante ne moom la ñuy toppee meerum ndakaaru bi Cheikh Abdou Bara Mbacke dolli moom di sàkku ci ay naataangoom député ñu daal bañ a wote ngir yëkkati mbarlaanu kir laay njaay bu Khalifa Sall naka noone Thierno Bokum di jàngatee mi ni kon ab mascarade juridico parlementaire la yëkkati mbarlaanu kirlaay bu Khalifa Sall coow lu bari lay jur noone la ko observateur xëy fësal ni tey ji yéenekaay groupe Futur Média bi di xam ne ni nguur gi ci boppam dafa mel ni dañoo nangu léegi ni xalifa Sall député la te it am na lu koy aar loole la ñu doon bañ sax ca njalbeen ga waaye parke bi ci wàllu boppam dafa mel ni kuy jéem a rek justifier li nga xamante ne moo tax mu teg loxo Khalifa Sall les échos moom xam ni beneen xeex moo tàmbali gannaaw càkkuteefu procureur bi yéenekaay bi di xam ne ni fii ak bàyyiwuñu Khalifa Sall audition mënuta am ndaxte avocat meerum Ndakaaru bi dañoo bind bataaxal jagleel ko président assemblée nationale Moustapha Niass di ci xam ne ni seen kiliyaan Khalifa Sall du nangu benn yoon janoo commission bi fii ak yoon ngi koy denc Bamba Fall jege ñaale Khalifa Sall di biral ni meerum Ndakaaru bi du nangu benn yoon di dalal commission bi ca diwaanu Rëbës gi mu nekk li waral ñiy sàkku ñu yëkkati mbarlaanu kirlaay Khalifa Sall dafay fësal dafa am lu muy ragal ci dossier meerum ndakaaru bi noonee la ko Walf Quotidien daal di xëy fasal ni ki tey ji ndaxte yéenekaay bi dafa jàpp ni dañuy bañ ñu dugg ci ab procès ñu daal di leen noot ci ay mbir yi nga xamante ne dañu koo def te jaaruñu ci yoon ba tey ci yéenekaay groupe Walfadjri bi moo di ñaa moo ciy tuumal njiitu réew mi Macky Sall ni kon bu dee wàllub jëfandikoo ak lekk koppar kenn dàkk ko njiitu réew mi Macky Sall ndaxte ni muy dundee dafa mel ni prince yu nekk ca pays du moo di ñaan di ci ñaawlu sax tekk tekkaral nguur gi ci doxalinu bon wi nga xamante ne directeur ku ci mel ni njiitalu COUD waaye tamit ki jiite woon port bu ndakaaru Cheikh ak directeur bu poste li ñu doon def ci wàllu luubal ak njuuj njaaj te ñëpp di ci teg seeni gët lu waay neex sol loolee dina dakk njiitu réew mi Macky Sall am ay dogal yu bees yu mu ca jël ngir gouvernement ci ab ni ki démb ca palais de la république ci la njiitu mi fëgg ci taabal ba bis tey kon ñiy bootu ci gouvernement am yépp ci ay ndaje lu ci mel ni conseil des ministres wala bokk bu ñu leen di séentu ca assemblée nationale ab bépp ndaje bu mënti doon faaw rek ñu soppi colin bokk na ci li muy sàkku ci ñoom ay costume yu sombre wara bokk yëre olof di grand yu weex lu ko moy dana rëkk seen ndigg ki yoon war a rëkk ndiggam mooy Assane Loppi ab ab ndaw la buy def première L ca école bii di machallah jëf yu bon la nekkee woon di luubal ak fraude ci ay compte yi nga xamante ni ñoo nekk ci banque ci diwaanub Sénégal yoon daal dina koy teg loxo naka noone juróom ci ay complice yi nga xamante ne dañu leen a teg gët ñu fekk baax ci diwaanub Roumanie gone gi loppi moom li tax ba ñu teg ko loxo mooy vidéo yi nga xamante ne fësal na ko ci Facebook ak YouTube doon wane li mu doon def ci ay compte jàmbur yi nga xamante ne ay carte gab yu mu defaral boppam la doon luubalee koppar yooyu lay bëri la MCA na ma teg ci table bi ngir financer lu jëm ci wàllub énergie ci diwaanub Sénégal mu ñeel ñaareelu pàcc compact bi le quotidien yéeni kaay di xam ni kon toll na ci lu jege juróomi téeméeri milliards yi nga xamante ne kon Sénégal moo ngi xaar ci wàllu wi enquête yéeni indi yeneen chiffre enquête yéeni indi yeneen chiffre yi ñeel ñaareelu pàcc compact Millennium Challenge Corporation boobee mu jàpp ni kon milliards ci suñu koppar Wari dafa fas yéene yóbbu ci yoon kii di Millicom ngir ñu fexe ba bañ a jaay Tigo waaye tamit jëlaat li nga xamante ne mooy transaction bi ci boppam yéene kaay Sacré-Cœur bi ñëw ci beneen mbir bu doy waar muy jàngat gi mu def ci fitna gu ñuy def góor ñi ci sëy yéene bi di ci fësal ni téeméer boo jël ci góor ñi nga xamante ne dañoo nekk ci néegub sëy juróom fukk ak ñaar yi nga xamante ne dañu coo faatu dara waralu ko lu dul seeni soxna li waral Pape Alioune Ndiaye fës lool ci diwaanub Turquie mooy jéego gi di Galatasaray stade yéene kaay di fësal ni jamono tembe milieu de terrain suñu gaynde yi mooy ki gën a dox ci club turc boobule beneen gaynde Fallou Diagne sekk waxtaan ak suñu naataango yu observateur défenseur suñu gaynde di addu ci jongante Afrique du Sud Sénégal mu jàpp ni amul lenn lu ñu war a calculer lu dul dem ca Polokwane jëlee fa ndam ngir daal di qualifier ca coupe du monde Sénégal jëm kanam